président de la république boo xam ne yaakaar ji mu jur bi mu ñëwee ak léegi kenn xamul nu mu toll léegi nag tey mu ñëw jàkkaarloo ak sénégalais yi. ginnaaw bi mu waxee premier ministre ak gouvernement bi ñu def état de lieux état de lieux mooy lan wax réew mi fu mu toll ak jafe-jafe yi fan la toll parce que réew boo ko yoree ñi nga xam ne ñoo la ko dénk da nga leen a war a wax dëgg moo tax am na ñoo xam ni xëy na gisee nañ neen mais ñëw wax état des lieux. wax yëf yi fu mu toll am na solo loolu moo tax ñu njëkkee ci wax sénégalais yi fi nu fekk réew mi ak jafe-jafe yi fan la toll ñu wax jafe-jafe yi fan la toll ak nguurug Macky sàll li mu yàq réew mi bi ginnaaw bi mu waxee yàqute yi am te waxul lépp waaye li ci ëpp solo rek la wax moom premier ministre ci fan yeenu génn tey nag moom premier ministre ñëw toog ànd ak gouvernement président de la république toog fekkee ñëpp ñi nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi ñëw toog fekkee ñu présenté li nga xam ni moom mooy vision bi nga xam ni fii ak deux mille cinquante jéego yi ñu war a dox ñun Sénégal pour jëm ci développement jéego yooyu danañ wax lu ci nekk nan lañ koy defee lool tey lañ doon def. ñu am ci mbégte mu rëy parce que li ñu def tey képp koo xam ni nitu dëgg nga xam nga ni boo ko comparé ak li daan am di nga xam ni wuute na lool parce que ñun li ñu def teguñu ko ci naxaate dañ koo teg ci dëgg. wax sunu doole fi mu toll wax jafe-jafe yi fi mu toll wax sénégalais yi ni jamono jii ngeen di nekk ñëpp ni dëkk bi dafa dëgër mais li tax mu dëgër mooy dafa am ku fi nekkoon lépp alal joo xam ne da ko doon nëbb sénégalais yi ab lépp alal joo xam ne lu ci ëpp da ko doon pasar pasare lépp loo xam ne sunu koom-koomu réew attanu ko ba tax na tey sénégalais yëpp sonn léegi nag coono boobu ñuy dund nii di conséquence su mauvaise politique ak choix politique yi Macky Sall doon def loolu la président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tey wax yan yoon lay jaar pour ànd ci ay saafara yan yoon lay jaar pour coono yooyu sénégalais yi di jànkoonteel nu mu ko mën a wàññee ba noppi xëcc euh, sunu économie ci boor yi nga xam ne moo ëpp solo muy xool nu muy suqalee mbay mi nu muy suqalee napp gi nu muy suqalee euh, xëyu ndaw ñi nu muy suqalee dundinu doomu aadama yi nu muy suqalee paj mi nu muy suqalee njàng mi lu ci nekk mu wax yan yoon la koy jaarale teg ko nag ci juróom-ñetti pàcc yoo xam ne moom la bëgg a xaaj réew mi bu ci nekk mu wax la yow la nga am doole nan la ca la nan la la cay fekk se muy ay pôle territoire yoo xam ne ku ci nekk dina fexe ba sa koom-koom yokk ba lii am ci réew mi nga xam ne li ëpp ci alal mi ngi diggante ndakaaru ak dëkk yi jege ndakaaru waaye dëkk yu sori ndakaaru yëpp dañoo ne ci ndóol gu méttee métti ñu ne nu ñuy def ba yemalee sénégalais yi ba ku ci nekk li ñëpp bokk nga gis ci sa bopp ñun ñëpp ñu yëg ni am na gu bees gu am ci réew mi man jàpp naa ne yaakaar judduwaat na yaakaar jut naa jàpp nañu yàlla dinañ ci defal ndam. opposition bi daal bu dee bëgg nañu réew mi nañu nangu rek dogalu yàlla. français une économie extravertie maanaam koom-koom boo xam ni li ci ëpp bitim réew la jëm ndaxte entreprise yi ëppoon doole fii. lañ doon jox économie bi ñu ŋànk ko léegi nag ñoom dañoo bëgg a ŋànk économie bi ba xam ne sénégalais yi la ñuy delloo ñu moom maanaam une une économie boo xam ne day sukkandi ci li ñu doon ñun sénégalais yi ak li ñu man lépp lu nit man ñu dooleel ko pour mu gën koo man loolu nag nga xam moom la ñu tuddee vraiment souveraineté euh, économique loolu la président Bassirou Diomaye fay tey présenté woon sénégalais yi leen jafe-jafe yi metti na li ngeen di dund metti na waaye yaakaar juddu na ndaxte naam réew mi fi mu toll metti na yàqute bi foo ko natt weesu na ko waaye am naa gis-gis boo xam ne fii yëg ñu jëm deux mille cinquante maanaam ñaar fukki at ak juróom yii ñu jëm ça ne veut pas dire ci tappalekat yi naan fii ak ñaar fukki at ak juróom donc ñëpp dañuy muñ du loolu. dani bu dee fukki étage lañ war a def pour Sénégal mën a développé wu deux mille cinquante jàpp nañ ni ñetti weer yu ne. juróom benn weer yu ne daañ fexe ba benn étage ñu tabax ko di ko tabax ndànk-ndànk parce que réew doo xëy xëy rek lépp matale kon nag lool lañ bëgg wax sénégalais yi nañ ànd ak dal am yaakaar wóolu nguurug président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndaxte gëm nañ ni bu fekkente ni juróomi at yi nga moom lañ ñuy njëkk a natte ak coppite yi nu war a def yëpp ak sellal gin bëgg a sellal alalu réew mi am nañ yaakaar ci ni bala moo yàgg sénégalais dinañ gis ñoo ngi ci yoon